alhamdulillahi santaan yàlla war na ma di gii gan gu tedd ma doon xaar gan gi yëg na di alhamdulillahi gii gan na di gan gi yee na di gii gan li koo ko teral ak ay nuyoo léeg sa waa gan gu màgg na di gan gi ganu mbégte moo gën gépp gan gu ma xam maa sopp saa gan gi lim yor jar na sopp ko di inni uhibbuka yaa sahri siyaami bilaa xisin fa ahlan wa tarhiban bilaa adadi gan gee di saab soppe mooy ngoos gépp mbon gi fi man gan gii dëkkoon fi man kon may songu ma di gan gee di ceeboo ngëneel mooy sëqi may di ma jox mooy belli saa yi mooy te mooy jubbanti saa juba ji sëriñ ca bii gan gi yor bépp jullit bu ko xam sa yitte mooy teeru gan gi te ke fonk ko di sa yitte bii gan gi yor bépp jullit bu ko xam sa yitte mooy teeru gan gi te fonk ko di yaa sax rabbin karimin fii ka jaadat lana bi laylatil qadri daatil fadli war raxaati jullit bi ci weer yi wépp yiw mi ngi ci farlul ci tuub bépp bàkkaar gan gi day gane di mooy weeru yërmaane ak njëggal fegal la safaan mooy weer wi quraan wàccoon weer tedd la di ذا توبة فيك غيرا ماديا أبدا بالذكر والشكر والقرآن إلا هدي jullit bi kan gaa ngi noonu teerul te nan ko teral te nan ko jox xaqam te bul sàggan ak ay doy de allahumma salli ala sayyidina muhammadin ñoo ngi ñaan ci barke weeru koor wi suñu borom daay def jàmm ak xéewal ak sutura ak naataange ci réewum Sénégal di ñaan feebar bi nga xam ne mooy coronavirus suñu borom jële ko fi ci barke weeru koor wi ñu ñaan nag mbokki taalibe yi képp koo xam ne jot nga si na taali nga abonné